organisation des nations unies yëngal na réew mi l'observateur nañu ci xëtëf njëkk li kuréelug nations unies googee wax ci réewum Sénégal ci nee na xoolaat sa dogal bu cour répression enrichissement illicite bi tëj Karim Wade mbir jur na coow ubbil journal bi avocat yu Karim Wade yi ba dogal ba jibee ak léegi amatuñu jàmm ñoo nga yëkkati seen loxo ak di fëgg seenu dënn ko yuuxu ndam ba noppi di dëggal ak wëral bokku Karim Wade ci wote présidentielle yi 2019 yi journal bi dañu waaye nag loolee mu di convergence des cadres républicains bàyyiwuñ leen ci ne ab janoog taskatu xabaar yi la ñu gonte woon foofee sax fa la Abdoulaye Diouf Sarr mi bi xam leen ne comité droit de l'homme bu organisation des nations unies xalaatam la joxe waaye neewul ne dañuy wañ loxob Sénégal ngir mu jëfee ko gars yi ñuy wër di def seen manipulation waaye li ñuy waxal comité droit de l'homme bi comité bi waxul loolee maître Pape Sène mel na ci yéene gaay bi du kenn ku dul maître Alaaji Amadou Sall muy wër di wax lu ko neex moo ki gaayam bëgg lëndëmal xelu askan nañu cadre yu APR yi kase nañu décision bu comité droit de l'homme ba ci organisation des nations unies Abdoulaye Diouf mi coordonnateur bi moo xam ne démb ne comité droit de l'homme ba ci organisation des nations unies du instance juridique boo xam ne dara ci wàllu yoon ay pexe yu Karim Wade ak i gaayam tekk ngir bëgg a gàkkal deru justice su Sénégal waaye loolu dañuy sonal seen bopp rek opposition bi ñoo jaxasoo jaaxle xamatuñu fu ñuy taxaw moo tax tax comité droit de l'homme bu ONU bi wax lii ñu dégg ko rek bëgg ko defum siiwee bëgg caa jafandu Diouf Sarr ak i gaayam ne bu Karim Wade dëggee tànkam ci réew mi te nanguñu ci moom alalu askan yu mu ngembal toog ci lu dul bàyyi ko muy yaataa yumbe ONU li mu wax ci mbiri Karim Wade bari na waroo ci gis-gis yu ci dina kay dañu yëf yi du neex a lijjanti mbir yi wanaa su ko yombul dogal bi nga xam ne cour répression enrichissement illicite jël na ko ci mbiri Karim jafe na ci instance internationale yi ànd ci léegi nag dogal yooyee donte mënesul ne Sénégal faaw da koy waaye bu tëddee nelaw Karim Wade ak Macky Sall photo boobee moo ne dàng ci xët mu njëkk Sud Quotidien bi nañu Karim Wade wàccegul Macky Sall moo ki gaayam ñoo ngi teg pression Macky Sall pression bu rëy bëgg nañu ñu bind Karim Wade ci liste électorale yi liste ko nañu waaye moom Karim Wade la mu demoon doon ko sàkku ji ci comité droit de l'homme ci comité droit de l'homme organisation des nations unies bari na lu mu ci amul ne Karim Wade yi bokk na ci bëggoon ñu annulé maanaam soo ba mu fay alamaan ji ñu koy toppee loolee Karim Wade bëggoon nañu dindi ko waaye comité Karim Wade fanweeri fan maanaam weer ngir mu lijjanti ko bi juróom-benni weer la wax nañu wax ci li source a xëy di wax premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ki ministre am at mu yàlla sàkk seeni dépense dina dikkee Sénégal juróom-ñaar téeméeri milliards maanaam 700 milliards yéenekaay bi dañu cabinet ministériel yu gouvernement Boun Dionne ña fa nekk 2016 ak léegi yokku na 6 pour Abdallah Dionne ay garde corps rek li ñu leen di fay weer wu nekk mat na million boo demee ca ña ca primature mu di conseil cabinet yeeg chargé de mission yi primature ku ci nekk boo laalu ñetti million weer wu nekk yaa ngi laal ñaari million li ñu ci chauffeur nag kenn xamul nu mu toll ñetti téeméeri chauffeur ak fukk ak juróom-ñett maanaam 318 ci diggante ministère de la justice ministère de la santé ministère de l'agriculture ministère du travail ak ministère affaires étrangères mbir mu étrange moo am ci Fissel Mbadane réew mi quotidien moo ñu ko xëy xibaar benn waay moo fa rendi jabaram libération nañu waa def loolee Saliou Ciss la tudd ab professeur jabaram jamureen di ami jëng la tudd journal bi nañu bés ba mbiri xewee ab luuma moo amoon ca dëkk ba ñëpp dem fa ndaw si toog cëtt bi dafa ëmb ba diis nag mi ngi ci juróom-ñeenti weer jëkkër ja ñëw ndaw sa ko fekk ko fa jël paakaam ca la ko rendee enquête ba ñu cey def ak li mu jot a feeñalugum nee nañu mbirum fiiraange moo ko waral boole ceekit professeur SVT bi àndut ak xelam maanaam dafa manqué bañ na ko ba léeg-léeg sax day crise moo waraloon ñu ne ko at mi bul jàngale ji l'observateur nañu ba mu defee la muy def bu nuppi maanaam ba mu rendee jabar ja dafa daw ñoo nga ko jàppee ca marché mbaa fay askan yu ñoo ko gis jàpp ko jébbal ko gendarmerie